sama Samagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii ci 9e édition Adel ci Tëngéej ba tey ma taxaw ci boxe boo champion bi dina wax moom mooy kan moom moo fi ma ba kilifa la. ah dina la char bu wér wér. tur bi tur bi muur la muur. muur bergerie muur. waaw bergerie. di Amdi Kara Rufisque. Amdi Kara. lan mooy Amdi Kara. Amdi Kara. Ah. xam nga Amdi Kara lu dul ak taalibeem safu la. ah, ah taalibe Kara quoi. taalibe Amdi Kara macha allah. mais ngeen def ñaari box ma gis exposition bu nice euh, tey la nga mën waaw tey moom sujet ñu leen indil moom dañ leen indil ki nga xamante ne moom mooy Nazer. Uh-huh. di doom si Ramadan. Uh-huh. yaayam nekk benn doomu ci Yacine. ok moom la indi ak ay sujet mooy année nga gis nii yëpp moo leen jur boo xoolee. Nazer mooy mooy maal mooy maal bi. mooy maal mag bi. boo xoolee année bii rek ok ak jeune maal bi. bi ñu indi nii. waaw doomu albaraka la. ok yaayam nekk doomu xarañ. ok albaraka ban. albaraka bu ñoom Maguette Cissé. macha allah. Mm. nga indi ko euh, kan mooy Nazer fu mu jógee ak ban fan la. waa Nazer moom. Mm. benn doomu doomu Ramadan bu Tafa Diallo dañ jël benn doomu ci yasin mhm. tekk sa ramadan mu judd wa mo lañ ci indi tey wa dañ ko recruté woon bi am 2 mois 2 mois nampul sax si yaam dafa judd rek yaam daanu kay hmm ñu dafa judd rek yaam daanu ngeen jël ko ci kan jël ko ci ben wa bu nekk fi ni la Ousmane Kane après ngeen jël ko nampal wa ñoko nampal ba mu ni nii macha allah moom ñaata weer léegi moom instant mu ci si 18 mois 18 mois waaw espoir la espoir la nii. waaw ah. foq loolu foq ko. mais mu ngi door a foq. mu ngi door a foq. kii mm-hmm. foqul day dugg de booy. non bu foqoon day rajaxe carte gi. day rajaxe carte gi gi. macha allah maa la wax ku mu àndal foofu. waaw foofu mu mu àndal euh, benn fois bi ñu naan Ndeye Khady mooy robe noir bi. waaw Ndeye Khady doomu colonel la euh, si kii moo ñu ko joxoon euh, Boubacar Thiam. ok mooy nampal mbote bi noonu. waaw moom mooy nampal mbote bu robe noir bi. waaw noir bi nampal aussi doomu Naseer la robe noire bi romb na leen na leen. waaw robe bi aussi doomu. moom ñaata mois la bi. mbode bi mooy Antonella. ok euh, keneen ki ci genre ñebe bi. Uh-huh. moo ko jur quoi papa ji doom mooy moo ko doom bi uh-huh. Nasser moo ko jur. ah moo jur ñaari moto yooyu moo jur ñaari moto yooyu. moo jur ñetti année yi nekk fii. ok macha allah produit maa bi kese dafa jurul euh, dégg bi bii. Jeune Mali moom mooy moom moom mooy ndam li la phénomène de Rio. Mhm. doom si albaraka. moom dañ jël benn doomu saar bu jigéen. ok teg si caat. Mhm. benn femelle judd. Mhm. caat subeeru. ñu jël femelle boobu teg ko si xarañ. yaayam judd. ok waaw nga recruté ko jël ko teg waaw moom tamit dañ ko si sept muy ñëw tamit deux mois la indi. deux la seex la seexam a ñu kër ga. musique ñu ne deux mois lay indi. ok cuurul ba. waaw cuur bi tamit doomu naseer la. ah doomu naseer la. kon ñebe bi moo yaa doomu xarañ. ok kon ñebe bi itam moo fi dul doomu naseer. waaw ñebe bi kese moo fi nekkul doomu. moom recrue a wala Thiel la juddoo. waaw moom tamit recrue la. ok waaw moom nekk doomu MGK bu Thiès. macha allah. kon instant bi Nazer moom moo nekk ci bergerie yi am di karaat liggéey wala dafa am yeneen waaw instant nag moom la liggéey pour l'instant ok waaw mais dañoo dugal jeune mâle bi nga xam mm-hmm. rafet na merci euh, tey ngeen ñëw def ñaari bopp ñaata ngeen ñëw ngeen ñëw foire fii waaw bii ma xool suma juumul bii mooy suñu deuxième année ah, ah. waaw ci ci Adel ci foire yëpp non si Adel ci Adel ok yaa ngi ngeen foire quoi waaw dinañ génneen foire bi bergerie fu mu nekk bergerie mu ngi nekk euh, cité M3 fii tënkee bu fees waaw mm. na. merci beaucoup. ok mais euh, Nader femelle bi moo àndal garaaw na mooy Ndeye ah, mooy moo jur Antonella. Uh-huh. moo jur poson bi. moo jur poson bi moo jur poson bi. ah macha allah mais fii tamit ay añal doy fee kon jox ma numéro bi adresse bi. macha allah. 77. waaw 946. 59 71. mooy numéro 77 946. waaw ku ñu bëgg a jot rek incha allah boo contacté numéro boobu rek. macha allah da nga bi. waaw ah, foire moom macha allah neex na rek. Ah, parce que foire moom bu xarit rafetee rek neex na. Ah, foire yi moom gis nañ ni ren. comme euh, bu bu am ambiance amul rek neexul. bu xarit rafetee la foire bi neex na man moom noonu laay foire xarit rafet nañ foire. mais xam nga ne foire ren bi fari euh, xarit dañ naaj. non gars yi moom ñu ngi liggéey macha allah gars yi moom exposé nañu jaar yoon. vraiment yéen it kenn demul ngeen def. kontaan naa mais merci ñoo ngi gën a kontaan. jaajëf.